tey nag bi ñu xëyee ah, comme nekkuma fi am na ku ma ko booyaloon su ma xëyee te gisoo ma eh, wanal kooku néew yi kooku moo ma woo ma ñëw mu ne ma man de numéro 4 ci jigéen ñi am na fa fu mu fa dem foo xam ne nii gis naa fa benn néew am na gaañu gaañu ma ne ko ah mu ne waaw ma dal di jóg waaxu dem ci ko jigéen ñi ubbi numéro 4 xool eh, néew ba mu am benn góom waaye ma ne ko ah bii góom daal du tey ndax góom góom bu doon tey du wow ba pare. ci kaw góom bi am dëtt li wër góom bi commencé ñuul boobu góom ah, nekkul ni tey la dagg damaa yaakaar da ko fee indaale dal di ubaat ñëw toog di continuer sama liggéey bi demee ba nga xam ne nii maanaam uh, ubbi nañ ko pour ay bokkam yoo ñu ñu toppatoo ko ci la ci la ci lañu ko teg ci kaw lal bi ñu ne maanaam néew bi lii dañ koo dagg may leen ah bu ñu ko dëggee de xam naa du tey ndax bii góom déglu rek bii góom du tey ci loolu ñu ne loxo yi am nay xosi xosi tànk yi am nay xosi xosi mu xool door xool baaraamu loxo bi gis gis euh, gis gis mu am xosi xosi di naaj mu xool tànk yi gis mu am xosi xosi di naaj waaye lu ci nekk xosi xosi la nekkut lu ñu dagg yóbbu amu ci fenn foo xam ne nii am na cër bu ñu fa dagg yóbbu te góom bii niroo góom bu ñu dagg góom boobu du tey góom boobu ci kaw gi commencé na weex am dëtt góom mënuñu ko dagg biig mu nàcc biig fer biig am dëtt tey ci suba kooku moom mënut a nekk te 11h minuit la fi néew bi ñëw lii moo doon problème